asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 4 juillet 2018 ñu ñëwee si yéen ci bi di sunu làmb yëglikaay bi nag tey Modou Lo la ñu xëy wan mu yëkkati ay loxoom. yor ay xarfa xufaam maanaam daal ay gàllaajam mel ni kuy waaj a bëri ji waaye kiy wax nag njuga ja lañ koy wax moom nag na moom mooy superviseur u Rock Énergie moom nag dafa xëy di dal ci kaw Balla Gaye numéro 2 moom njuga ja nee na Balla Gaye 2 na xam ne Modou Lo du moroomam te Balla gay 2 fi mu nekk nii du mooy mbër moo xam ne ni mën na jaaxal Modou Lo wala moo nil ko benn jafe-jafe ci làmb nee na déedéet nee na Balla daal fi mu nekk nii moom dafa wàcc wàcc ba nekk ci suuf la def bu newoon ci kaw daal wàcc na ba yegg ci suufa suufa suuf kon na xam ne daal du mooy indil Modou Lo leer ne daal jël na combat boo xam ne nii daal ah lu tàng jër la ci loxoom de li mu tee moom tàng na lool te buñ ca yeggee dina xam ne tàng na ci moom bu baax a baax a baax Ndiouga Dia moom moo xëy tey di wax lool ci journal bi nga xam ne mooy sunu làmb ba tey buñ continuer le 28 juillet moom ku ne xam ne lay am diggante Bombardier lay doon ak Eumeu Sène ñaari mbër yi ku nekk yaa ngi dugg sa morom ndax bu dee ama seen la moom li mu wax le li mu xam ne daal mooy reculer moom du ko def iota maanaam du ma dellu ginnaaw foo nekk dama la fay fekk xeex ak yow bëre ak yow Bombardier nee na ko waa bu keroogee moom ah di nga xam ne daal lépp dëgg la kon combat boobu moom bu yeboo daal ku yebu nga xaar ci ay gaañu gaañu wala dóor mu daanu lu nekk mën na am ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier ndax ñaari mbir yoo xam ne ñu ngay diggante kenn fasul yéene daw ñii moom seen combat léeg mu ñëw double moteur Mame Balla dimanche bii nu jëm waaye nag coow da caa ndax lii coow li mooy kere seen face à face ba ñu doon def 2STV daal maanaam coow dafaa am ba ay agression am ca ba ñu gaañ ñu bokk ci waa kër Mame la moo tax nag nag Pape Diagne Seras ma nga xam ne nii daal moom mooy manager wu kii nga xam ne mooy Mame Balla nee bu coow li jeex maanaam bu combat bi jàllee dañuy porter plainte ndax nag bind nañ kayit bi ba pare dañuy yóbbu plainte bi nag parce que nag lii dafa ëpp ndax moom dafa jàpp ne sax double moteur ñi muy àndal ay wayu la man nag waxuma ko Pape Diagne Seras moo ko wax ci sunu làmb nee daal double moteur ay wayu lay àndal ndax lii ñu def dafa retourné na ko loolu muy wax ay waxi caaxaan la Double Moteur agressé wul kenn xamul sax ko agressé nee na loolu moom na leer nañ coow li bi muy am ñaari mbër yëpp ñu ngi ci biir salle bi Double la ngi ci biir Mame Balla ngi ci biir Sawru Fall moom moo wax loolu ci yëglekaay bi nga xam ne moom mooy sunu lamb loolu coow la loo xam ne ni daal am na ci diggante double moteur ak Mame Balla général Malika moom ne nañ kere day moo kale kii nga xam ne mooy Kalmu Ndour maanaam moo ko freiné xam naa ci lit simple ba lay doon loolu yëgle kaay bi moo ñu ko wax mbay guy gi ak ki nga xam ne mooy bébé bis moom ñu ngi préparé pour seen combat bi nga xam ne war nañ ko bëree Ibu Njaay ñox Ibu Njaay di óbbali moom ne nañ jilaas kera moo ko jël maanaam daal ci lit simple bi loolu Modou Lo moom sunu làmb xamal nañu ne gis nañ ko fan yi mu doon ñëw stade Marius Ndiaye di supporter ñi nga xam ne ñooy gayndey basket yi di leen gunge waaye ba tey dañuy continuer rek ci benn jàkkaarloo boo xam ne amoon na diggante l'an 2000 ngeen xam ko bu sab ak kii nga xam ne mooy Farouz neen ñaari mbër yi daal seen mbir moom nar naa na ko yow Farouz du yaa may téye ma a dem la dàq laa juddoo màggee jàmm gën si gàmbaaw buñ ca yeggee di nga xam bu baax a baax ne maag yow dinaa la téye wala du ma la téye waaye dañuy dellu si loo xam ne daal coow la loo xam ne amoon na ba tey ñu wax leen ko léegi muy diggante double moteur Mame Balla Cerno Ka mi nga xam ne nag nag ci ñi yore CNC bi la bokk daal la mu xam le mooy nee na ci kàttanu yàlla bu maanaam daal mbir mi moom bu ñëwee CNC maanaam buñ buñ dekkay indi ko fa dinañ ko topp te buñ ko toppee nag buñ gisee ne ay tooña nga ca moom sanction dina am ak ci ku mu mën a doon ak ku mën a def coow li waaye ba tey dañuy continuer ñëw ci tolaak bi nga xam ne war naa am gaynde yi nag nañ fi nekk nii daal ñu nga Léopold Senghor di liggéey lu jëm ci wàllum travail ñoom nag li ñuy wax daal mooy nañ leen gën a jox seen gëdd ñoom entraîneurs yi parce que nag dañoo jàpp ne joxuñu leen seen gëdd moo tax ba xam ne daal seen waxtaan ba ba kera wax nañ ca loola dañuy ñëw nag ci loo xam ne yëglikaay bi yi dañ ko tàmmal muy indil ñu mbër ak sam tey nag Gris Bordeaux la ñu indil boo xoolee ay combat Gris Bordeaux daal maanaam mu ngi toll ci maanaam ñaar fukki combat ak benn wala boog ñaar fukki combat ak ñaar waaye Gris daal li leer ba leer mooy ay victoire am onze victoire la Basirou Cissé la daan daan Mbaye Diouf daan kii nga xam ne nii mooy Mbaye Jonn daan Xaadim Ndiaye 2 daan Antoine Baaxum daan Eumeu Sène daan Tyson Senior yàlla na ko yàlla yërëm daan na lag de Guiers numéro 1 daan Bombardier daan ki nga xam ne mooy Baye Mandione daan Tyson ay defe tam Samba jaañ moo ko daan kàdd gi daan na ko Balla Gaye numéro 2 daan ko ni daan ko Eumeu seen daan ko Modou Lo daan na ko ñaari yoon Balla Gaye 2 tamit daan na ko sans verdict kii nag nii la tëdd Samba Diagne la ko seqal ak ki nga xam ne mooy Baye Mandione loolu mooy palmarès su Gris Bordeaux Lamine asalaamaaleykum mbokk yéen ñu ngi ci seen site internet lutte tv com tey mercredi 4 juillet 2018 Babacar bi nga jàng yéen kaay ba pare ñu ñëw si jàng bi Lamine maa ngi nuyu di la ziar di nuyu bépp internet bu siiw lutte tv com ni nga ko waxee tey la mercredi 4 juillet ñu nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm journal bi moo la xëy fësal mhm. mu ngi yor ay nenam ak ay affaire am xaw ma baxal xaw ma day mayonnaise nag waaye njugo ja mooy wax Modou day xam nga kooki bagage ay nen ak xaaw daal la téye nen nag baxal wala omelette ñaar yooyu xam naa dina ci jeeg waaye moom ay nenam moom neni làmb la maanaam ca làmb ji koy indi mu nga nag yëkkatay loxom waaye kii wax moom mooy ki nga xam ne mooy Ndiouga Dia ñu ñu koy tudde boog superviseur la fëre nga xam ne moom mooy Rock Énergie moom nag moo xëy tey daal di dal ci kaw Balla Gaye numéro ci combat bi nga xam ne war na dox ci digganteem ak Modou Lo moom mooy miir waaw nee na daal Modou Lo du na moo jàpp na ne su keroogee Balla dina xam ndax nag dafa la moom da nga fi mu nekk nii wàcc na ba nekk na daal ab simple soldat daal maanaam ab minute maanaam kii bu ndaw la daal maanaam fi mu nekk nii da maanaam daal Balla wàcc na daal loolu mooy waxi Ndiouga Dia. damaa foog ni doo ko bëgg a déstabiliser rek waaye lu mënta xew Balla moo daanoon Modou. waa loolu moom am na moom mooy la assurance waaye nag làmb la jëm làmb nag boo ca jëmee lépp loo mën a def pour déstabiliser sa adversaire di ko def moo xam si communication la moo xam si travail booy liggéey la ak lépp lépp ah loolu nag ñu seetaan nañu yónnee yàgg rek. la mu wax tamit nee na Balla Gaye moom mënut a indiloo benn xel ñaar Modou Lo. waaw loolu ba tey ay waxam la nee ay xel ñaar mënu ko dugal ci kaw Modou Lo wala ci kawam am na tamit lu loo xam ne wax na ko nee daal Modou bala Balla na leer ne ah jël na xal wu tàng ko ci loxoom de maanaam daal li mu téye fi mu nekk nii moom dina tàng trop tàng na lool ci moom te balaa koo bàyyi dina xam ne tàng na. leneen tamit nar naa tàng jër ak tàkk-tàkk wala deret muy diggante Eumeu Sène ak Bombardier war a am le 28 juillet. waaw foofu moom nee daal ah tàng ak wàllum sang maanaam wàllum deret ni ñu jégal ci kàddu gi nañ journal bi nag moo ko bind maanaam daal mën nañ ko jaaxaar ndax ëmb ne na du dellu ginnaaw te Bombardier ku ko xam-xam ne moom du dellu ginnaaw kon ñaar ñooñu nag buñ dajee moom kenn delluwul ginnaaw boo sàgganee moom lu waaw lu doy waar mën na fa am daal moo tax journal bi ni wax ñu ni Bombardier ak Eumeu Sène pour ñu fàtte Modou Lo ak Gris Bordeaux Balla Gaye waaw parce bu fekkee ah dinañ fàtte combat yooyu bu fekkente ne ñoom ñaar ku ci ne li nga wax assumé nga ko bés ba jot nga ñëw jàkkaarloog sa morom jiyaat ak moom xeex ak moom bëreeg moom combat yu mag yi fi amoon tey xëy na jeex ci ay avertissement ak yooyu dina tax amateur yi fàtte ko. ñeneen ñi a bëre muy Farouz ak ak ak l'an 2000 ñoom tamit waxante ne. ñu ngay diggoonte parce que Farouz l'an 2000 sax moo ko ne yow mënoo maa téye xam nga Farouz comme Farouz la fa nag ku ci dawal oto ba yegg si ci bu ruusee moom taxaw nga war a def waaye moom nee na du taxaw xalaatul mukk Farouz ko arrêté day jàll Farouz nag tontu na ko ne na ko loo mënti xam xamal ne Bawol laa juddoo màggee jàmm gën si gàmbaaw maa la gën a doon xale maa la dàq bëri maa la dàq xeex. Double Moteur tamit danañ wane ku ci morom morom ku ci nekk dana wan sa morom ku dàq bëre ku dàq xeex waaye supporters yi moom commencé nañ ko. waaw supporters yi moom commencé nañ ko waaye nañ ko commencé nag ñun Lamine duñ ko rafetlu ndax man moom wala ñun lépp lu jëm ci mbirum violence luy gaañ nit moom ñun loolu dañ cee maanaam kenn ñoom nag seen diggante jàkkaarloo bañ doon def 2STV fa la amee problème ci biir supporters yi xeex ba gaañante yooyu nag dañoo war dañoo war a xam ne ñun ay sénégalais lañu Mame Balla Sénégal la dëkk Double Moteur Sénégal la dëkk kii a ngi yeewoo Pikine kii di yeewoo Rëbës bii yaa ngi dégg supporters yi xeex la war a bàyyi Lamine xeex fajul dara xeex ku pexem jeex a koy def mm. nit ki looy def da nga dem ak argument Mame Balla espoir u lamb la Double Moteur noonu kon ñi ànd ak ñoom nañ leen gunge Double Moteur lii li a a xayr dinañ la ko yàqal te ñi la koy yàqal dañuy mel ni Babacar hmm. yaa ngi dégg matuñu euh, xaw ma nu ñu leen mën a tudde daal xam nga li waykat ba noonu matoo kilo matoo kilo matoo libre xaw ma nu ñu ko waxee te woon am na yoo xam ne yàq la quoi mbër du préparé bésam jëm ci a war a dem uti ndam nga di ko xeexal ba tey ñu ci wax ay plainte ndax gis nañ Pape Diagne Sera nee ñoom bu làmb ji jeexee dinañu bind seen plainte déposé ko hmm. yaa ngi dégg Sawru Fall nag mu ngay satal mbërëm mbaa moom it nee na mbërëm loolu defu ko ndax bi muy am na ne ñaari mbir yëpp ñu ngi woon ci biir mbër mi mbër mi moom du ci lenn moom mbër mi moom yaakaaruma ne moom dana jël di dóore wala na xale di bëre ñuy seetaan ngay bëre ñu ñuy fay di la seetaan yaakaar naa dina am na leen loo tal lu xeex bay gaañante kon dama ne ñiy topp mbëri encore une fois nañu am maturité euh, am maturité lañ koy waxee ci tubaab tëdu ñu am responsabilité li ñuy def xam ne nit ki lépp looy def nanga nga ko assumer ay xeex ak ay gaañante yeeg yooyu taxul réew avancé taxul mbër mi am ndam. dimanche la ñuy laale mardi bébé bis mi war a laale ak mbay guy gi. bébé bis mi mbay guy gi loolu tamit di combat espoir bu neex war a am mardi ba la ñu jëm ci stade Iba Mar Diop bu Mame Balla ak double moteur bëree ba pare muy lamb joo xam ne tamit lambe xale la. Mhm. waa ju nar a neex. comme palmarès moo xew léegi journal bi andil nañu palmarès su Gris Bordeaux comme ni comme ni mu ñu andiloon bu Bombardier bi ak bu Eumeu Sène waaw boo xoolee palmarès bi daal mën nga ne mu ngi mën nga koo tënk ci maanaam ci vingt et un boo xoolee vingt et un yi nag am na ci onze victoire am na ci huit défaites am na ci ñaari sans verdict waa loolu de moom tamit sorewul ak Eumeu Sène palmarès de. waaw moom kay li ma la wax la rek ñoom ñaar seen palmarès yi moom ah waaw mu ngi noonu daal ñi ñi internet xam nañ li jaadu waaye loo ci mën a dégg ci am na lu a riisal maanaam ci mbër yi qualité mbër xoolee ci daan naa daan naa bombardier rek doy na de voilà actuel roi des arènes moom moo ko daan tey rek moo ci daan ki nga xam ne mooy bombardier ginnaaw bi Yékini bàyyee làmb ak Balla Gaye numéro kon loolu xëy na mën na rafetal palmarès bi mook Eumeu Sène dañu daanante daan na bàyyi ma Mandione xam nga daan na Tyson yooyu xay rafetal na palmarèsu mbër waaw moo xoolee nag mais ndam yi moom taxu ko bari onze la défaite yi huit la sans verdict yi ñaari sans verdict la loolu daal mooy palmarèsu Gris Bordeaux. tournoi CEDEAO bi dafa mel ni gaynde ya wala mbër yi boobu comme ay gaynde lañ sax waaye gaynde lañ rek fii ñuy basket gaynde lañ ñuy football gaynde lañ kon mbër yi am nañ seen i gaynde ñoom tamit ñu ngi entraîné seen entraînement yu métti. Lamine ñun waa Lutte TV bi sax ay gaynde la ñu. waaw Sénégal moom réewum gaynde la mm-hmm. kon ñu ñëpp ay gaynde lañu kon gaynde Aliou Sall nee na 15 millions gaynde lañ fukki millions ak juróom ci ay gaynde moo fi nekk Oustaz Aliou Sall ñu koy nuyu di ko ziar maanaam ñoom ñu ngi waajal tolak bi moo tax yëglikaay bi xam ne daal ñu ngi préparé wu fële nga xam ne mooy Léopold Senghor ci liggéey boo xam ne daal fas yéene dem xam naa Niger pour bëre ji fa ci lu jëm ci wàllum CEDEAO wala tolak comme ni ñu koy xamee daal Tuuti Yaay Sarr gis naa koo gis loolu temps yi Tuuti Yaay Sarr waaw mu ngi fi ngi si jàmm Modou Ngara yaa ngi dégg taal bi Serigne Mbaye si Abdou gars yëpp bu ñu limee dañuy jum la nature xam nga. ak jamaïcain borom lu 14. ak waa jamaïcain ndar loolu foofu lay amee dëkku Golbert Diagne suñu papa jooju gisoon nañ ko bañ demee ndar ñuy wax ne la 14 la bàyyi Baye Mandione Gora Sock Dame Sène Sisa Wuli 1 ak ki nga xam ne nii mooy parisien bu Fass mhm. muy làmb yoo xam ne tamit lu nar a neex la fële nga xam ne moom mooy ndar géej. kon ba suba ak